jërëjëf mbokk yi amati mbégte ak kontante bu baax a baax a baax jàkkaarloog yéen fii ci Sénégal Buzz 221 di leen nee naa ni ñu leen koy defee rek ak yéen di leen leen toppal li nga xamante ni moo di màggal gi di la dalal ñi nga xamante ne tamit ay ndaanaan lañ ay kilifa ci réew mi nga xamante ne nag moo di Touba waaye nag ma seet si koo xamante ne nag min nañ ko ci rédaction bi di Sénégal Buzz 221 di Serigne Zal Gueule Tapée di Daaru Salaam doom ci ki nga xamante ni rek moo di euh, Cheikh Béthio sénégalais yëpp xam ko ma seet ma yàgg kaa seet si nag chaque at waaye ren nag ma baaxantal ko rek dama koy bàyyi ak mu nuyoo mbokk internet yi Cheikh bi maa ngi lay siyaaraat bu baax di la nuyu. maa ngi lay bëggee. te naan asalaamaaleykum wa rahmatullah taala maa ngi siyaare waa Sénégal bés mu mel ni damay santaat di bég si teewaay giñ fi teewaat ngir rekk ngeen jël ma nu waxtaane màggalug Serigne Touba te mu mel ni yéen waa senegal bés day kóllëre gi nga xam ne sëriñ tubaa ñu boole loole ngeen di doxal ba tey waaye maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa bitim réew di nuyu waa senegal waaye di siyaare xalif général muy Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ah noo ngi sant bu baax di ñaanal mbokki taalibe yëpp waaye di ñaanal sëriñ Saliou ndigal cuun mu yàgg fi lool te waaye di siyaare sëriñ Khalifa bay Fall muy Khalifa maam Cheikh Ibrahima Fall di Serigne Modou Mbenda Fall di ko ñaanal Fall Ndiaga Yaram mu yàgg fi lool te wér si barkeb Serigne Saliou si noonu kat ci laay ñaanale Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne saaliw ak njabootug Serigne Saliou gépp di leen ñaanal nu yàgg fi lool te di santaar rek tey békk di santaat rek tey bekk ay ah, yaakaar naa li nga xamante ne noonu la ubbeewee nuyoo ko kóllëre gi nga xamante ne dox na digganteem ak waa Sénégal Buzz 221 ñuy ñaan rek yàlla na ko suñu borom ah, yàggal waaye seex bi nag euh, nee naa la duñ saa su ne rek dinañ la seet si waxtaan ak yow ci li nga xamante ni tey moo di màggal gi naka nga gisee wàccaay bi ci dëkk bi. ah màggalug ren gii day xanaa santaat sëriñ bi ndax màggal gii day li sëriñ Tuubaa sama tey ju ne day gàcceel sama démb mel na ni fireeku na ren ah di santaat sëriñ bi si nii sëriñ Saaliw ndigal doxe màggaluk sëriñ Tuubaa gi mu mel ni daaw day ay lim si nag la jëndoon waaye la sëriñ Tuubaa sama tey ju ne dana gàcceel sama démb mel na ni fireeku na tey ndax ko gis tey démb bi ñuy dàq nag yi aa ah, nga gis giléem yi gis xar yeeg nag yi nga xam ni Serigne Béthio jugu fi te moom day du fi mës a jóg ndax Serigne Saliou ne ko Béthio mu ne ko Mbàkke mu ne ko féeg yoonu Serigne Touba ngi dox saw yoon di dox bari ko si mbartal ku si teg sa loxo mu dem ku si tegul sa loxo mu dem aa ah, mbir feeñ nga tey muy Serigne Saliou Ndigal di taawub sëñ Béthio di gaynde di saadeex ah ku jur ku jur doom deewoo. wallaay ku jur doom deewoo démb dama koy wax ba naan bu la fi sa bàyyi bàyyilee loo yokkut waroo ce wàññi waaye gis nañ sëñ Saliou yokku na ndax démb maa ngi dégganteeg sëñ Adra Fall mu xamal mi ne ma li fi romb démb ci nag première première arrivage bi la li des a ngi ci frontière yi ñu téye ko mu war a dugg si waat fii ci Touba. déedéet li a ngi si frontière yi. ndax mel na ni dafa jàmp te camion yi. mel na ni lii àll bi tooy ngir ñuy dem si àll bi lu jafe lay doon waaye ba nag yaa ngi des si àll bi ngir war a ñëw Touba Serigne Saliou ndigal daal ah gayndey sëñ Béthio la jàmbaar la saadeex la murid la li ñuy def rek mooy ñaanal ko mu yàgg fi ndax leer na ma ni bu fi Serigne Saliou ndigal yàggee ah leneen ay feeñaat barke Serigne Touba ndax sëñ Béthio nii rek la ko daan defee waaye tey billaay taaw bu mat taaw la moo waral mu rëgët nag yi ak gillee mi ko defe démb damaa jooy la tax ma jooy mooy damay fàttali sëñ Béthio te kat ni may fàttali sëñ Béthio ni la ko fàttali ni la ko ñëpp fàttali ko ba tax na daal ah sëñ Sall daal jàmbaar la murit la ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi te wér ah, yàgg fi te wér mbokk yi loolu tamit di ay kàddu yu am solo loo xamante ni nag euh, sëriñ bi yëkkati na ko waaye ba tey rek Cheikh bi damay des ak yow rek ci li nga xamante ni tey moo di actualité di seen ndongo loolu nga xamante ni tey moo di Omaro ofan yi mu jum jum boo xamante ne sénégalais yëpp euh, ñaawlu nañ ko ginnaaw bi mu toogee démb ak sëñ Zal sëñ Zal waxtaan ak moom dénkaan ko ay kàddu ba mu jëlee ci wat boppam tuub jégalu xam na leen ni dana delluwaat ci li nga xamante ne moo di cant gi gi mu nekkoon ba Serigne Saliou teg ko fi mu ko teg naka nga déggee kàddu yooyu ak jëf jooju. waaw man de dama dama doon nit koo xam ne du ma tooñ. déedéet te dara jëraluma ko si àdduna man xaw ma wax ju ñaaw man Serigne Saliou ma yar fukki at ak juróom-ñett def si man ngërëmul Serigne Touba ah, mbirum Amaro ah si dugg nag ndax li tax du si dugg mooy lu bari dama leerul si moom ndax xawma ma ko bu ma ko xamoon sax xëy na dina am neneen nu may doxe lu bokkut ak dugg si média yi di wax si mbirum Omaro ndax du ma tooñ noonu yi la demee waaye nag yoon wi yoon wi yoonu sëñ Béthio la waaye may fàttali mbokki taalibe yi bu kenn jàpp ni yëf yi yawa déedéet doo si dara lépp sëriñ bi la am tur tey ba adduna di la joobee ka na nga ko sante sëñ Béthio waaye na nga delloo buum sa boy boy ga waroo wax luñ lay xeebee waroo jëf luñ lay xeebee waroo dugg fuñ lay xeebee kon nag si loolu rek laay dénk mbokki taalibe yi képp koo xam ne aju na sëñ Béthio maa ngi lay dénk nga rafetal tey rafetal ta bañ wax lu ñaaw ba bañ a def leneen loo xam ne ku ko dégg nag cam loolee daal maa ngi koy soññi mbokki taalibe yi waaye mbirum Omaro nag man xamaluma ko lenn lu dul wax dëgg yàlla day sunu mbokkum taalibe bëgg sëñ Béthio lool te turam nii li ko may mooy sëñ Béthio bu jébbalu woon sëriñ Béthio kenn du ko xam bu jébbalu woon kenn du ko xam waaye jébbalu gi mu jébbalu moo waral sëñ Béthio ñaanal ko te jëmm joojee de ko mu ñaanal nga tàkk jëmm joojee ko mu ñaanal nga boy jëmm joojee bu dee nit ñi dañuy xool dañuy bëgg sëñ Béthio tax bu dul woon sëñ Béthio du ñu doon dara barke Serigne Saliou bu dul woon sëñ Béthio du ñu doon dara kon saa su ne ñu war mooy sant seexul Serigne tubaab yi ndax kat bu ñuy dox ñu ñuy tudd yàlla ak sëñ Béthio la kon ki la may loolu war ngaa dellu ginnaaw te di ko sant ta gore sa digganteek sëriñ bi te bañ wax loo xam ne ku ko dégg ñu ne taalibe sëñ Béthio ba la ma wax man daal wax dëgg yàlla loole bokk na si loo xam ne ci lay dox te dara mënuma si dindi ci laa sax ndax loolu la ma sëriñ Saaliw yare ka nga xam ne kenn ku nekk si ñun lay sa wàccuwaay man cuun dinaa la ko jox ba mu mat sëkk du ma la xalab na xaw ko du ma wax lu ñaaw ndax xaw ko lu dul bëgg la te jàpp la te la leneen lu ma la xamal nag dinaa la suturaal ba ma sàmba du yëg ma dem ba du yëg nii rek la deme waaye nag bu ñu duggee sib ruq maag yow sañ naa waxtaan ak yow nalakat bu ma sañoon nii ngay doxe ak nii ak nii nga daal di soppiku ndax doomu aadama matul doomu aadama léeg-léeg mu def loo xam ne ku ko dégg na cam waaye saytaane rek a bari doole saytaane nag mooy seet fu mu xajul mu dugg fa nii rek la deme wasalaam. wasalaam mbokk yi nii rek la demee ñu tëj